vraiment cette opposition là euh, ñii dañuy jeexal xol quoi parce que dañuy jeexal xol opposition bi dañuy jeexal xol Sénégalais yi parce que du ngeen jël ay doomu jàmbur génne leen ci mbedd mi ñu faat leen ba pare ngeen taxaw ngeen surtout ngeen faatante seen biir li ci ëpp ci yéen loolu am ba pare ngeen toog di naan da ngeen di jaale seeni waajur cest à loolu mooy da ngeen di. da di kekkantoo sax waajuru ñooñu da ngeen nekk di kekkantoo ak famille ñi nga xamante ne seen njaboot ñoo loru ci li nga xamante ne seen i conneries personnelles parce que du ngeen taxaw def seen i conneries bi si seen connerie bi njëkk mooy seen liste bi mu baaxul yéen taxaw d'accord di tamante dëmm jëti Déthié Fall moo ko def monsieur saara ko def Khalifa Sall a ko def Ousmane Sonko xëy bind page Facebook am. ne def nañu ay conneries ba yàq suñu liste ngeen dem ba reconnaître yéen xam ngeen ne seen liste bi yéen a ko yàqal seen bopp ngeen jël ay doomu jàmbur manipuler leen yóbbu leen ci mbedd mi ñu faat leen wala ñu faatante seen biir ngeen taxaw di jaale seeni mbokk non yéen ñooñu seeni mbokk ñu leen may dara waruñu leen baal dara parce que yéen a jël seeni njaboot manipuler leen parce que xale yi day ngeen leen manipuler ci ay kàcc ak i fen parce que nan nga Ousmane Sonko taxawee ne moom seen list yi ñun ñoo ko yàq baaxul ñun ñoo def suñu connerie Déthié Fall tam dëmm Sarr Sarr tam ko dëmm seen biir ba pare ngeen ne doomu jàmbur yi dem leen xeexal ñu suñuy kàcc ak suñuy fen ba ñoom seen i kàcc ak seen i fen tax ba ñetti doomu aadama seen bakkan rot mais c'est honteux c'est dégueulasse